waaw tey dañu ñëw Thiès euh, préparer benn réunion boo xam ne suñu membre yi nga xam ne ñoo nekk Thiès euh, le président Habib Diène nga xam ne moom moo nekk le président euh, régional des mareyeurs de Thiès UNAMS donc ñuy préparer seen journée le 21 novembre journée mondiale de la pêche artisanale nga xam ne journée boobu chaque 21 novembre dañ koy célébrer donc nag moom mu ñëw di ko préparer au niveau de Thiès ñu ànd ak moom en tant que membre ànd ak moom en tant que organisation ànd ak moom en tant que frère pour ñëw jàppale ko ci li nga xam ne mooy bis bi pour bëgg mu réussir parce que bu réussir euh, toutes les mairies du Sénégal sont réussies donc kon moo tax ñu ñëw ànd moom fii pour wax ci li nga xam ne mooy journée bi ak li ko waral ak yëpp pour ñu mën ko préparer. waaw dëgg la parce que xam nga journée bi organisé woon nañ ko fi en 2021 euh, tey bu neexoon mënoon nañ ko décentraliser mais yóbbu ko feneen mais li tax defuñu ko parce que comme ñoom ñu jël initiative xam ne fii defoon nañ ko mu am réussite. parce que fii boo xoolee comme particularité bi nga wax Mbour ci Thiès la bokk Joal aussi ci Thiès la bokk fu mel ni Kayar fu mel ni Fass booy dëkk yooyu yëpp ku ne xam ne ne dëkku tefes yu mag la kon buñ ko fi defee def nañ ko fi ñu ko war a def donc looloo tax ñu bëgg ko dolliwaat ba nga xam ne secteur de la pêche xam nañ ne fii ci zone bi la bokk am na yeneen zone nag mais li wóor te wér mooy fii boo seetee li nga xam ne moo fii génn ci wàllu produit amul benn région wala benn foo xam ne dina fa génn ci wàllu produit kon cees euh, dafa nekk centre boo xam ne centre bi ñu ko war ñëpp ay pêcheurs lañ ñu ko wër ñëpp ay consommateurs lañ ñu ko wër ñëpp aussi ay mareyeurs lañ ba tax na kon ñu bëgg ko dolliwaat fi nga xam ne mooy région de Thiès. waa dëgg la képp koo xam ne du romb sax day romb sax ministre parce xam ne ne mareyeur dafa am ñu ko séq ñu bëri parce que mareyeur rek moo fi nekk métier boo xam ne euh, dafa boot ci trois ministères parce que ministre de commerce euh, aussi si ñoom lañ bokk bokk aussi ci ministre de transport parce que benn métier boobu ci nekk dafa am lu ñu ci boole parce que kenn koo xam ne yaa ngi wut carte mareyeur il faut nga am registre de commerce te registre de commerce kooku commerçant yi ñoom ñoo koy am kon ñun ay registre de commerce dañu bokk ci ministre de du commerce aussi li nga xam ne mooy ministre de transport lu ñu ci boole dañu nekk ay mareyeur ba pare yor ay camion di transporter ay jën di ko yóbbu kon ñun transport dañ ci bokk ba pare bokk ci ministre de la pêche parce que bi tax ñu bokk ci pêche mooy jëni moo ñu ci boole kon donc loolu tamit il faut ñu won askan ne mareyeur am na ko ci secteur bi ak nga xam ne mareyeur mi ngi koy liggéey ci au niveau national parce que kenn ku nekk xam ne distribution au niveau national mareyeur moo koy def mareyeur mooy a lekk ku ne xam ne ne li nga xam ne moom lay jëriñ ci doomu aadama parce que 70 pour dafay bokk ci wér-gi-yaram ordonnance la boo xam ne kon ñi nga xam ne ñoom ñoo koy distribuer pour fekk nit ñi jot ci kon bu ñu amee seen bés di ko célébrer kon jàpp naa ne toutes les consommateurs toutes les familles war nañ ñëw célébrer ko ànd ak ñoom. waaw dep voilà trois départements yi sax da romb damay lancer li nga xam ne mooy région de Thiès yëpp. lancé aussi li nga xam ne mooy yeneen région 14 régions yi ne ñoo nekk ci Sénégal te aussi di wax ne jamono bi ñu toll nii dafa am benn crise boo xam ne crise boobu ci lañ nekk muy crise émigratoire émigratoire boobu crise émigratoire boobu bëgg nañ ci aussi joxe ci ay message def ci ay sensibilisation pour ñi nga xam ne ñooy jël mbëkk mi ak période bi fi mu toll nii pour ñu fexe ba ñooñu ñu bàyyi ko ñu fexe nu ñu def ba mën a toog ci réew mi liggéey pour mën a développer suñu réew maa ngi ciy woo nag ñëpp région yëpp 14 région Sénégal yëpp ñu ngi leen ciy woo aussi di woo ñi nga xam ne ñooy autorité administrative yëpp pour ñu ñëw mën a déglu message bi mën ci jëlee njëriñ loo xam ne ëllëgee si biir bu buñ ci jaaree Sénégal dana mën a développé. ngaay am na fi yaa ngi dégg waa Fass Boye ñëpp ñu ngi fi wax dëgg yàlla ñuy def réunion technique ak wala ñuy def réunion préparatoire boo xamante ni ji journée mondiale de la pêche bi nga xamante ni fii kees bu ñu daggoo nangoo ñu ko organisé woon 2024 21 ak ginnaaw bi li ci xew yëpp yàlla dogal ñu nanguwaat tey ñu organisé waat ko fii ak kees loolu sant yàlla. kon xam na ni kees delloo ñu ginnaaw te jox nañu waa kees cër yaa dégg ndax wax dëgg yàlla boo demee kees ak li ko wër yëpp ak pêche dañ cee saf sàpp ndax ñaati géej ñoo ko wër Mbuur a ngi fii euh, Fass Boye ngi fii Kayar ngi fii ñu ñëpp département kees dañ bokk te vraiment kon pêche am na fi doole wax dëgg yàlla macha allah. waaw li ko li ko waa li ñu yaakaar bi ñu am ci kees ba indiwaat ko kees. dañuy wax ni bu ko ëpp incha allah dinañ ko wane. bu ko gën a am nañu yaakaar ni na fi am. am nañu yaakaar ni confiance bi nga xamante am nañu ko ci waa Kees day gën a chaque jour day gën a fidèle wax dëgg yàlla ñu ngi woo dëkk yëpp bàyyiwuñu kenn particulièrement waa Kees. ak euh, taren ak dëgg suñu ministre bi nga xamante ni moom mooy war wàllu géej gi muy ministre de la pêche muy Pape Sagna Mbaye wax dëgg yàlla jamono ñu koy organiser euh, Alioune Ndoye moo fi nekkoon yàlla yàlla dogal ci kayu Pape Sagna Mbaye ci la ñuy organiser journée mondial de la pêche ñu ngi ko ci invité invité moom kenn waxatu ko waaye xam naa di ko xaar pour bis bi mu ñëw taaral ko ak ki nga xamante ni moom mooy parrain bis bi mooy président ab Ablaye ay bay AIBD koo xam ne sama xarit la wax dëgg yàlla muy jàpp bis bi lu mu man ak lu mu mënul kon vraiment ñu ngi xaar waa Kees yëpp kenn te ñu ñëw feete ko ndax wax dëgg yàlla Kees daal daawul def ginnaaw ci dara surtout marié yi nga xamante ñoo nekk kees di dundal métier bi en tout cas ñu ngi joxe rendez-vous ñëpp le 21 bu kenn des bu kenn manqué yàlla na yàlla may wér yàlla may ñu fekke bañ àgg ci bis bi ñu célébrer ko incha allah waaw jërëjëf waaw kàddu gudd moo sant yàlla rek di la sant yow li nga xamante ni yow ak ñun du ñu ñaar kenn lañ lépp lu marié xewle depuis loolu yàgg na ma ko wax toujours bañ daan tëgg làmb wax dëgg yàlla nga ñuy orienté tey nga jiite téeri yaa ngi dégg ba yaa ngi dégg mu nekk benn sas boo xamante ni mareyeur yi war nañ ci jàng ñuy ñaan tamit waa kees mareyeur yi nekk kees union communale bu nekk kees dem ba lii nga xamante ni mareyeur am nañ ko waa kees yaa ngi dégg am ko ci fànn bu ne ak li nga xamante ni tey bientôt ñu tijji marché central au poisson bi wax dëgg yàlla ñu ngi cee xaar ah ay ndam yoo xamante ni wax dëgg yàlla macha allah yàlla yóbbu ñu ci di la jaajëfal di la encouragé di la wax ni liggéey baa ngi si kanam ndax bëgg nañ ci bis bi nga xamante ni moom lañ jub sa taxawaay xam nañ ko nga def ci mucc liggéey bu mucc ayib wasalaamaaleykum wa rahmatullah bonjour Mohamed Silla chargé de communication Union nationale des mareyeurs du Sénégal bon nous sommes venus ici à Thiès quittés dans différentes localités de l'INAMS parce que l'INAMS c'est une plateforme nationale voire internationale euh, qui se trouve dans toutes les régions du Sénégal euh, sur la littorale et dans les marchés à l'intérieur du pays Euh, nous sommes venus ici au, à Thiès pour venir soutenir nos frères euh, de l'INAMS Thiès qui prépare une journée très importante, qui est journée mondiale de la peste artisanale, qui est une journée organisée partout dans le monde pour la peste artisanale le 21 novembre 2023, ici à Thiès, à la place de la promenade thiessoise. Donc cette journée est, est très importante pour nous, les acteurs de la peste artisanale, parce que c'est une journée de plaidoyer. C'est une journée où on doit parler des difficultés de notre travail. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, le secteur de la pêche a beaucoup de difficultés. Donc, c'est très important que quand y a des journées comme ça, qu'on invite les autorités euh, étatiques, les autorités ministérielles, nos euh, ministres de tutelle, pour euh, partager cette journée ensemble, essayer de trouver des solutions sur nos problèmes. Voilà, donc c'est pour cela que nous sommes ici aujourd'hui à la présence euh, de notre président national, Pape Ibrahim Diaw, et notre président au niveau de Thiès, qui est président Habib Diène. Voilà, pour venir euh, euh, le soutenir euh, pour la préparation des de journées. Bon, on ne s'inquiète pas pour cette organisation, puisque le président Habib Diène, c'est lui l'interlocuteur direct des acteurs de Thiès. Il est le véritable représentant des acteurs de la pêche de Thiès, en particulier les marieurs. Donc pour cette journée, euh, nous attendons une très grande réussite euh, à travers toute Thiès et les, les régions euh, frontalières. Voilà, parce que euh, nous avons organisé cette journée il y a de cela euh, deux ans. Euh, cette année-ci, union communale de Thiès a décidé d'organiser cette journée et c'est parce qu'ils savent très bien qu'ils ont la capacité d'organiser une journée de telle grandeur. les autorités les autorités sont entendues. Notre ministre de tutelle, euh, Pape Sandiamay, est attendu ici à Thiès, euh, avec euh, tous les partenaires euh, des acteurs de la pêche Le ministre du Commerce le ministre du Commerce, des Transports, donc tous ces ministres, parce que le marior est sous tutelle de plusieurs ministères. Voilà, donc tous ces ministères ont été pour cette journée-là. le message lancé à la population de Thiès, c'est que de venir massivement soutenir euh, les marieurs de Thiès pour cette journée mondiale de la pêche artisanale, qui est une journée très importante parce que tout le monde sait que les marieurs assurent la redistribution des produits halieutiques à travers euh, les régions. Donc euh, c'est très important de venir soutenir euh, les marieurs dans cette journée-là parce que c'est une journée de tout le monde.